abonnez-vous sur notre chaîne ñu ngi lay nuyu di fàttali ni yow yaay candidat bu defar sa gox bu commune bu Marsassoum alors Benno Bokk Yaakaar nga nekkoon tey naka nga gisee choix bi nga xam ni président Benno Bokk Yaakaar daal dina koy def ci commune bu Marsassoum. donc di nuyu internautes di donc euh, pour tontu sa question rek. man euh, ci coalition defar sa gox laa jiite tey fii si wàllu élection locale bu ñu jublu santé waa APR la waa Benno Bokk Yaakaar la maa ngi gunge président de la République di ko jàppale tànn bu mu def si wàllu élection locale bu ñu jublu dañu gis ni maire bu fa nekk maire bu mu teg suñu kanam deful dara pratiquement moomu bilan Macky Sall la jël di glorifié wu man conseil municipal laa ci wax naa ci biir conseil municipal ma ne ko sëñ bi nu nga doxalee dëkk du noonu nu nga doxalee commune bi du noonu mais déggul parce que mënul ku mënul daal day foncer rek alors boo gisee ñu jël liste defar sa gox d'abord problème investiture baa ngi fa parce que ñu te ñu tànnal suñu maire Macky Sall bëgg a tànnal waa ji koo xamul deful dara si dëkk bi mënul dara alors comme boo tegee chauffeur boo xam ne amul permis xamul dëkk sax nga ne ko dugal si oto nga dawal nit ñi xam nga loolu day metti donc c'est par conviction et par principe lañu jël euh, liste bu ñu tuddee liste defar sa gox ñu ngi sant de gërëm Adama fay pour gis clairvoyance bi di teg liste bi pour vraiment nit ñi mën a participer ci élection locale bi parce que élection locale comme noo ko waxee la nawetaan la lan nga ñu mën a wax tey ci bilan bi nga xam ni kii jiite tey Marsassoum moom la am yow naka nga gisee bilan ndax da nga jàpp ni euh, bilan jiitu réew mi la nekk di daal di teg waaye moom da jàpp ni yow amul bilan lan moo ci sa xalaat. su Macky Sall defee loolu war nañ ko sant di gërëm mais à côté de l' état central les communes. wax na fi tur boo xam ne su ma ko waxee rek damay tiit. parce que kooku nu mu nekk di gérer Marsassoum vraiment dafa doy waar. Seyni ma bu nga tuddee. mooy maire Marsassoum mais kooku munul te xamul. lu tax ma ne munul te xamul musul nekk conseil municipal. te moomu sax politiquement sax musul nekk affaire. yow mii xam nga ni man meeting de ralliement bu ngande laa def ma dugg APR mais moom musul def loolu dem na boo wax ni suñu ko investirul dina jël liste parallèle dem sa xam nga kooku mu ñu fi pour boppam donc pour revenir sur les élections locales la moom xamul ni ñu mën a gérer benn commune parce que à côté des réalisations de l'État central pour son bilan il n'a pas de bilan malheureusement amul bilan parce qu'il y a des compétences qu'on appelle des compétences transférées aux wàllu santé wàllu tàggat yaram wàllu jeunesse wàllu sport et cetera wàllu culture <laughs> mais va à Marsassoum nga laaj lan seen maire bi lan la def lu ko des rek mooy dem na buti ci ginnaaw réalisation président de la république di leen naan waaw maa def pont bi maa def yoonu Sédhiou bi ma def pavé yi maa def lumière yi yow xam nga Marsassoum demal mairie Marsassoum nit koo xam ne mënul sax defar bërëb liggéey kaayam xam naa mairie Marsassoum boo ko gisee dafa mel ni poulailler yi ku mënul tabax mairie am pour que agent yi mën a liggéey si anam yu wóor si condition yu baax kooku mën na teg un kilomètre de pavé donc pour te dire en résumé Seny Mandiang ak équipe am bi amuñu benn bilan. est-ce que jàpp nga ni élection locale yi ci Marsassoum dina yomb wala da nga jàpp ni le 23 janvier. di nga nekk euh, maire bu commune bu Marsassoum. ma jeunesse et ma maturité. me permet aujourd'hui de mener à bien tout ce que Marsassoum va me confier en termes de compétences qu'on va transférer aux collectivités territoriales. Donc, le projet, c'est un projet consensuel que je suis en train de construire avec les étudiants, avec les sportifs, avec les femmes, avec les jeunes, avec l'ensemble de la population de Marsassoum. Parce que je ne veux pas être comme le maire actuel qui est là à faire des déclarations fallacieuses di taxaw di naa def lii naa def lii naa def lii nous on travaille autour d'un projet consensuel un projet participatif un projet déjà que j'ai mis dans le panel qu'on appelle le panel Defar Sa Gokh parce que le nom de la coalition suffit pour savoir que ces gens-là ne sont mieux développement de Marsa de Marsa Soum pour ceux qui me connaissent étant un acteur de développement une fois au pouvoir et Inch'Allah dès le soir du 23 janvier 2022 je serai le maire de Marsassoum parce que je suis convaincu que la population de Marsassoum a compris. S'ils font de moi leur maire, je vais contribuer fortement à l'amélioration des conditions de vie. Et les neuf compétences transférées aux collectivités territoriales seront les bien vues et seront développées en rapport avec les populations de Marsassoum. Sur le plan de la santé, je sais, on a les moyens et on a des ressources sûres pour booster le développement sanitaire à Marsassoum. sur le plan de l'éducation, étant acteur de l'éducation, étant vice-président de la commission éducation et formation depuis quelque temps, avec toute l'expérience que j'ai, j'ai des partenaires qui sont prêts à booster l'éducation à Marsasou. Sur le plan de la jeunesse et du sport, en ma qualité de président de Ligue de football de Sédou, en ma qualité de membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise, maintenant, tu sais ce que je le plan de la culture, dans je crois que je ne serai à étaler tout ce que je vais faire au Marsasoumois. Mais ils le savent très bien. C'est pour cela, aujourd'hui, le sondage ont la population de Marsassoum sont pour la candidature de M. Aliou Dabo et ils vont pour Aliou Dabo et au soir du 23 janvier, je serai commune de Marsassoum. J'ai des objectifs à moyen terme, la première année. de notre accession au pouvoir à Marsassoum, à court terme les deux ou trois premières années et à long terme d'ici notre fin de premier mandat, ce qu'on va faire à Marsassoum, on a un programme très clair pour toutes les couches de la population et pour tous les secteurs. Et les Marsassoumois ont compris, c'est pour cela ils se battent pour vraiment faire de Aliou le maire de Marsassoum. Docteur Annette Seck itam fa la nekk moom moom la ñu investir candidat ca conseil départemental bu Sédhiou lan nga ñu mën a wax ci docteur Annette Seck. docteur Annette Seck pour ku ko xam. c'est une dame de développement. elle a commencé par le développement. elle a formé des centaines et des centaines de femmes dans toute la Casamance naturelle. à Marsassoum à Sédhiou et un peu partout. elle a posé des actes. elle a accompagné des secteurs. elle a financé <laughs> mais c'est un exemple pour la nation sénégalaise. à la tête de la PNA. Elle a innové, elle a approché les postes de santé et les malades des médicaments avec son projet Yexina, les pharmacies régionales, départementales, jusqu'à même communales. Elle a fait plein de choses. Je crois que c'est sur toutes ces questions, sur ces critères que le président de la République, son excellence Macky Sall, maa ngi koy sant di ko gërëm mu xool mu xam ni docteur Anne Seck am na profil mais docteur Annette Seck est une solution pour sauver Marsassoum donc di sant président de la république di rafetlu choix mu porté si docteur Annette Seck parce que docteur Annette Seck waxoon naa ko jour bi mu doon organiser sargal dama ne jigéen yi dañu jiite mais ñun politiciens yi ñoo naan a sargal docteur Annette parce que man APR laa bokk Benno Bokk Yaakaar laa bokk te docteur Annette Seck depuis mu gis mu jël engagement ak mouvement moom mouvement la yor CGM mu ne dina gunge président de la république yokku na lu ëpp quatre-vingt pour cent si vraiment électorat président de la république à Marsassoum parce que foofu la milité donc tey si président de la république porté choix départemental Benno Bokk Yaakaar te maa ngi xar sama tubay di gunge docteur Annette Seck parce que jar na ko dañu xam ni moom si jàllee am département de Sédhiou dina teg département bi sur les rames du développement elle a le profil am na xam-xam bi te elle est vraiment honnête et elle est là que pour le développement donc ñu ngi sant di gërëm le président de la république ñu ngi rafetal choix docteur Annette Seck te on va tous se battre à ses côtés pour qu'elle remporte le département vraiment avec succès te c'est même acquis je dis qu'aujourd'hui moi je travaille autour de la candidature de docteur Annette pour le département parce que je suis sur cette liste là vraiment choix bi daal ñu ngi koy rafetlu remercier le président de